waaw jërë ngeen jëf mbokki internet yi ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu di leen ziar baax a baax ñu ngi fii ci Thiès CRG Bulit Sidi Diakhaté production moo ñu fi woo ginnaaw bi mu jógee Dakar ci diggante Caatu Yoff ak Tyson 2 dafa wàcciwaat fii ci Thiès taxawalaat fi beneen affiche bu am solo war a dox ci diggante ñaari laay laay Pythagore ak laay Goté muy affiche bu am solo muy drapeau monsieur le ministre Yankhoba Diattara bi di deuxième édition bi mais ba ñoo sori rek dañuy bàyyi ki nga xam ne mooy laay Goté mu dalal ki nga xam ne mooy adversaire am laay Pythagore laay nuyu nañu salaamaaleykum Maalum Kara ginnaaw ban sant yàlla julli ci yonante bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur di sant suñ sëriñ sëñ ab Sakkoor mu sëñ Cheikh Fall Ngunda di ñaanal sëñ Mountakha Bassirou mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal am ni Modou mbenn mi xalifa général Baye Fall yi mu yàgg suñ kanam di ñaanal waa Ndiassane waa Tivaouane waa Layène fépp fu kilifa diina nekk ak kilifa aada rek waa ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi quoi. oui. dégg ngeen laay noonu la nuyoo mais ñu jox laay Pythagore borom rek énergie ak kër Seega nuyu nañ la. waaw mais ñu ngi si bu wér di sant yàlla bu wér di jul ci yonante bi di sant suñu ñaari waajur. Mhm. xam sant àddina bi yëpp di sant ñëpp. waaw di sant di bëggee di sant sama waa dëkk waa jandeer surtout comme ni nga waxee mhm. di wan sant waa parcelle en 26 mhm. di sant ñëpp du jaar mhm. jaajëf borom Medina Fall nga jël ki nga xam ne mooy laaj Pythagore sa diggante ak moom mu doonoon combat boo xam ni mën na ni ñetti at a ngi nii ngeen di wër wër yéen ñaar ñàkk adversaire moo tax nga jël ko wala bëgg a bëri moo tax nga jël ko waaw mun naa ni combat bi sax bi ko persi di bëggee yàgg na quoi mais combat bi nag wax dëgg fa yàlla yàquwul woon ci laay yàquwul woon ci man. ci kan la doon parce que kenn ku ne joxoon naa ko ram xam naa Sidi moo moo doon moo bëggoon événement bu nganda nganda nganda parce que drapeau yaa ngi ko jot du événement bu ndaw. yaa ngi dégg parce que boo xoolee diggante laay Pythagore ak laay goote ñaari laay yooyu. ñaari laay yow mi koy reporté sax lu garaaw ngay reporté foofu. kon nag faaw mu doon drapeau yaa ngi ko ba mhm. waa ñu ñëw jëflante di ñaan yàlla may man dam ci kawam. yow Modou Anta war laa indi moom Modou Lo war koo waaw man moo daan te moo ma indi moom Modou moo koy indi mais wàllub teen la ku ñëw ca pind ba ngay yem. war bi suuf lee man ak moom ñoo fay des quoi. wooy di nuyu au passage waaw. <laughs> say supporter namoon na lool gëj laa gis depuis sa diggante ak Daabu Texas. waaw combat bi moom mun naa ne damay lancer appel di wax laay Pythagore mii taxaw di ko wax ni ko combat bii sax xam nga li ma lay expliquer man du sama combat quoi combat waa Thiès la. combat waa Thiès combat waa Thiès la. parce que gars yi ñoom ñoo ma ko gën a bëgg barke maam Cheikh Ibrahima Fall waxuma laay caaxaan de ma àndal xam nga li ma lay expliquer ak amateurs yi. ak fans club yi ñoom ñoo ma gën a bëgg combat bi te nit nag soo jubloo ci benn combat xam nga li ma lay expliqué ñi lay yóbbu gën laa bëgg combat bi kon loolu sas bu rëy la quoi booy di ko ñaanal wér di ñaanal sama bopp wér rek bala jour yàlla may man dam ci kawam ci barke alam nasara ci barke weeru koor gi la Pythagore ñu gis nga toog sept ans daanu woo nga ñëw sa diggante ki nga xam ni mooy euh, tonnerre numéro 2 ñëw bëre fii hippodrome euh, ñëw ma kodd nga am loo ca jëlee ñëw tey war a wanewaat bopp sa diggante euh, ki nga xam ne mooy laay goote waaw si comme ni mu ko waxee rek ah combat bi yàgg na yàgg naa ñetteet ñu ngi ciy dox combat bi te wu sotti mais xam naa li naan lu jot rek yomb quoi combat bi événement la comme ni mu ko waxee drapeau ministre bi fii Thiès comprendre nga man ma bàyyi suma lépp ñëw pour bëri ak moom fii Thiès man su paree nag bay pare pour bëri moom Thiès pare naa pour bëri ak moom moom xam nga dafa wax am lu mu wax dañuy combat bi waa Thiès ñoo ko soxla mais combat bi man waa Jandeer ñoo soxla combat bi. sa digganteeg Laay Gothé. sama digganteeg Laay Gothé waa Thiès ak samay supporters parce que man mburu amateur laa. kon ñooñu mu bëgg gën a bëgg bis bi waaye. mën na cee xaar yéen ñaar jëflante bu metti samp jaaga xeex. mais loolu mënul mënul yomb. parce que man ku seetaan sama carrière yëpp yëpp ba ma dalee bëre ba léegi ak fi ma jaar ak ñi ma bëreel ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ba combat bi ma wax sànq maag Tonnerre Thiès fii yaakaar naa yéen waa Thiès yéen ñëpp nga fa woon ko xool combat bu xam ne combat bu yomb su may mbir du yomb moom bu leeree mu xam ko ay mbokkam nañ ko xam amul lu sedd ci ci kàttanu yàlla suñu borom li nga bëreeg général ne mooy soq mën nañ koo xaar sa diggante ak laay bu la neexee nga wax Fourouz wax Ali wax kaneen ak kaneen ba ci Modou Anta Magam mii maa maa na fun jaar mbapat kaneen ak ah? kaneen ñoom ñëpp bul wax la laay laay lim bëreeg ñu lim ñëpp barke Seexul Xadim du ko bëreeg man yow li nga bëreeg euh, ki nga xam ne mooy mooy jaru ko sax euh, non instant yi nii maak moom ñooy bëre man ñooñu fàtte naa leen yaa ngi may dégg gis ka laay mii xam naa ko bu baax ba muy bëre ay qualification drapeau chef de l'État fii maa ngi doon booy bu ndaw di ñëw di ko seetaan li muy nar ak li muy waaj ak lépp dama ko xam te moom xamuma xamu la yaa ngi may dégg gis ka te combat bi teguma ko sax ci ay dama koo xam ak yooyu noonu bu arbitre soufflé dama koy forcé jëlee ko fii mu taxaw barke maam Serafal xanaa da ngaa yaakaar mag la <laughs> non du mag boo ko xoolee mu ngi ci forme yaa ngi may dégg gis ka mais dama ko fiy jëlee kara foofu laa teg combat moom li may wax nii dëgg la quoi. moom xaj na ni ma ko xamee moom xamewu ma noonu. ni ni ma xamee man xamee wu ko noonu parce que yàgg na maa suivre fant la quoi. Ah, parce que ñoo ko jiir ci mbir yi quoi. mais làmb na yàgg na laa suivre yàgg ne li ma koy wax mais nag làmb moo toll fa petit contre gannaaw la il est temps ñu may suñuy rakk loxo. mais nag dafa fekk mag mi nag. dafa fekk mag moom hygiène de vie di entraîner xam nga yaa gën a xam laay Kara man xam naa ko mais bu mu ni fans laa lu ma def fans. moo ma jaaxal nga yor sa licence mu yor. moom mag la moo ma njëkk a bëre mais maa ko ëpp xam-xam. yaa ko ëpp xam-xam bëre. barke sëñ Bamba maa ko ëpp xam-xam fuuf. laay Pythagore mi tabaar bi suufle dina ci xam dara baar bi suufle. laay ki fu mu teg lool. mais fu mu ko xam man fi ma jaaree ko jaar na fa est-ce que ñu ma bëri bëri na ak ñoom est-ce que bis ñu ma bëri bëri na ak moom la laaj ma ko Modou Anta ñun ñaar 72 heures mbéy mi nu mu demee woon. 72 heures. 72 heures mbéy bu paas la waañ Moodu Anta Maamun nu mu fa demee woon. yaag Moodu nan la demee waxal. yaa ngi sos di wax yaag mu mu demee. waaw moo tax man la. jigéen si non yaag Moodu moo tax man la est jaar jaar na. yaag Moodu nan la demee yow li ma def ci lamb simple defoo ko laay man seetaan naa la laay. yaag may dégg dañ laa dëpp fu ne. yaag may dégg fii nga jàpp Mamadi mu dóor mu geesu dóor la man laay xam naa la ah waaw comme li ma la man man laay man mënoo maa jóg man man jóg naa ma kii yàgg na maa siiwul lu leer laa lay wax fante la yàgg na ma siiwul ma fans man mënoo maa jommal man jommi naa ba pare xanaa gën a jommal barke seexul xadim dañuy xeex dañuy bëre billaay wallaay taala dañuy xeex dañuy bëre kara man nekkuma fi di négocier xam naa ko mais teguma foofu ci kombaa bi naan xam naa ko bor bi soufflé dama koy seere jële ko fii mu juge fi man ma war a dem sama yoon nga naa maay nii ak ñoom waaw mais du du combat yomb combat bi moom ku ko yombal da koy nax waa Thiès ay mbokkam ak yëpp xam ne kuy bëre laay Pythagore ku ne bi mënul yomb mënul sedd ci moom c'est normal ah nii rek la mën a waxee. ngeen war a bëree drapeau monsieur le ministre Yankhoba Diattara. waaw mais mu nekk événement bu neex événement boo xamante ni bii tey yaakaar naa mbër bu ne bëgg na koo bëre. parce que ku nekk tey sañ na bëree bëgg na bëree ministre des sports surtout nga koy bëree dëkkam Thiès. kon événement la bo xamanteni yu man damay rêve bëri ko c'est normal combat bi yag nañ ko dox muy yag nañ ko dox muy muy yaq di yaq xam nga mais nim taxawé ak fim taxawé ça on fait plaisir quoi. Mm-hmm. lay drapo monsieur le ministre Yankhoba waaw di woo Yankhoba Diattara ci combat bi quoi parce que combat bi mom xam nga li lay expliquer ska fi ko dafa am importance trop parce que Yankhoba Diattara moy ministre des sports ah. ba pare deuk Thiès lay mi dëkk keur Sega may wo Yankoba Diatara mu ñëw jàpp ci combat bu baax woowu moo ko nag pour man kese parce que laay mi dafa war a ñëw indi mobilisation moom tamit na ko jàppale xam nga li ma lay expliqué mu indi mobilisation bu doy waaye nag day daanu. waaw day daanu. daanu moom lu mënul ñàkk ci moom la da koy def loolu foo ko teg. di woo ba jatara di woo Habib kan Habib kan maa ngi koy woo ci combat bi. parce que def naa ay année balance mais moom rek laa doon gis quoi way di woo Basirou Sey mii sama manager ku sonn ci man la maa ngi koy woo ci combat bi waaw di sant Pambay tamit quoi waaw maa ngi koy sant parce que ku sonn ci combat bi la ba combat bi taxaw di sant Père Siri tamit sonn na ci combat bi quoi combat laay goote décroché ko yombul mais moom décroché na ko kon maa ngi koy sant di ko gërëm di woo gise jaañ waa gise sama grand gise moom it sonn na si combat bi trop ay paate mu sant ay ñoom bër ay ñoom Maoda ñoom Yoro xam nga li ma lay expliqué di woo ay Omar Ndiaye Ibou Gambien yaa ngi dégg gis ga ak ñiy jàpp ci combat bi yëpp maa ngi leen di woo. waa di leen wax ni liñ doon bëgg am na quoi. waa ñu waaj ñëw. maa ngi sant ñëpp di gërëm. Adja Laye ñu bàyyi la nga woote. waaw mais di sant yàlla rek di julli si télé comme surtout comme ni ko laay waxee rek drapeau Yankoba Diattara la. ay doomi Thiès moo koy bëreel parce que laay mii ni mu dëkk Thiès gënuma dëkk Thiès. Mhm. parce que laa nekk fa laay defee lépp mais kër Sega fii laa dëkk. si biir Thiès laa nekk. kon nañu jàppale événement bi nekk benn événement boo xam te événement bu am doole lay nekk. Mhm. di ko ñaan nag ko baay mu jàpp ñu si bu baax a baax a baax parce que combat bi dañ ci soxla mbooloo. waa Jandeer yëpp dañoo war a wàll si. kon moom loolu la ñuy teg loxo xam nga di gërëm waa Kër Sega comme ni mu ko laa waxee rek waa raay ma ba ndox ba Kër Sega Daara Bayax Kër musoo xam nga cinquante képp kuy doomu jandeer rek combat bi soxla naa la ci quoi. xam nga di waa parcelle waa 1 bu 26. ma kenn képp ku ma doon jàppale rek combat bi ci laa gën a soxla ndimbal nga jàppale ma ci ñaan ci lépp maam ndam ci kaw laay. ajo ñu bàyyi leen ngeen jël force. waaw di woo autorité Thiès yëpp nag. di woo tamit mbëru Thiès yëpp. 100 pour cent Thiès bi maa ngi leen di woo quoi. oui di woo ñëpp ci combat bi di leen wax ni combat bi combat 100 pour la waaw di sant sama maam Mamsa di sant sama entraîneur Ndiaye Diarra waaw di sant staffu écurie Thiès mbooloo bi yëpp waaw di sant sama mag Mourante tamit di ko woo ci combat bi waaw noonu la demee di woo ñëpp daal jaajëf K.O. K.O. dafa kaawoo dafa kaawoo dafa kaawoo man tey ci Soso woo dafa kaawoo man tey ci Soso woo dafa kaawoo may tey leen ci Soso woo may dafa kaawoo tey leen ci